وآلائه العميمة وهباته الوافرة ثم السلامان التامان الكاملان على أكمل خلقه وأشرف رسله سيدنا محمد بهجة كونه wa diyaa'i nuurihi wa ala alihi qadrihi wa miqdaarihi alazim mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak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 ñu tibbee ko ci suñu xol jëmee ko ci seen jëm yu tedd yu sell yi muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu del ci kartanal yàlla di sof ak yéen li ñu sosoon ak yéen ci waxtaan yi yëpp passé ci diine ak ñetti doomam ya muy al islaamu ak imaanu ak al ihsaanu waaye diine ak fukki sëtam ya ak ñett julli juróom yi jiitu ci gannaaw tudd baatu seede bi xoor weeru koor haj makka gannaaw joxe asaka juróomi sët ya jeex ñeexal diine ci taawam bi ñuy tuddee al islaamu juróom benni sët mu jëlee ko ca toppam ba ñuy tuddee al imaanu te moo doon gëm yàlla gëm mbooleem yonantu yi gëm malaaka yi gëm téere yi waaye tamit gëm dogal bu neex ba ak bu naqari ba ñooña nga koy limee ba mu mat juróom benn di ay sët yum jëlee ci tofal islaam mi imaanu caat ma nag njabootu ñaari sët rek la ko jural muy almuraqabatul kubra ak almuraqabatu suxra boo leen boolee sët ya di fukk ak doom ya di ñett fukk ak ñett yile soqee ko ca ñett yile waaye diine moomu am ñetti doom ba la doom gu njëkk ji mooy al islaamu ñaareel ba al imaanu ñetteel ba al ihsaanu islaam moomu ci boppam dafa am ñetti martaba martabu ci nekk ak moromam ba du benn bu la neexee nga tuddee ko ñetti maqaamaat maqaama bu njëkk ba mooy at tawbatu tawbatu moomu danaa la wax suruut yi làmboo danaa la wax tegginin yim làmboo muy ay aadaab ñaareel ba muy ñaareelu martaba ba wala ñaareelu maqaama ba mooy al istiqaamatu istiqaamatu moomu danaa la wax ñaari ñaata sarta la am wax la tamit ñaata teggin la ñetteel ba nag mooy at taqwa ji firi ragal yàlla istiqaamatu di firi jub kocc tawbatu di firi tuub istiqaamatu boobu danaa la wax sartaam yaag tegginim ya waaye at taqwa danaa la wax tamit sartaam yaag tegginim ya ñett yile mooy maqaamaab diine mooy maqaamaab kon al islaam a tawbatu al istiqaamatu at taqwa ñooy ñetti maqaamaay al ku mu ci ñetti maqaamaam yooyu am nañ ay surut muy ay sartaf yi tax mu wér bu ca nee ak yi tax mu wéradi bu ca manqué xam na ay teggiin yu ca ne yoo xam ne yu ca ne mu rafetal ko bu ca manqué ñaawal ko gannaaw bi ma la waxee nag maqaamaatu diin asalaasa ba njëkkee la ci nag maqaamab al euh, maanaam al islaam muy ñettam yooya at tawbatu istiqaamatu at taqwa su ma ci bàyyeekoo jëlal la maqaamab imaan ak ñettam ya su ma ci bàyyi ko indi la maqaamaat ihsaan ak ñettam ya waaye yooyu nag dina jël ay waxtaan yu xaw a gudd topp ma rek insha allahu ñi la koy farañ fànceel par benn ba mu leer nañ ci sa bopp bi ndax nit ku nekk lim jàpp war na koo xam loo gëm di ko jëfandikoo war nga koo xam li nga xam lum foor foor soo ko xamut weesoo goo ñàkk ko li nga ñàkk lum rëy rëy boo ko xamee weesoo goo am ko nit léeg-léeg mu am lu baax te du ko xam kenn bàyyi ko fële yorewut dara yore ab xànjar cuub ko muy melax mu sóob la ca nax la ca ba bàyyi loola ca or bile mbaa sa jamaa bile saa yoo demee nag ba foo lam la jox mooy li gën boo demee ba ci kii xam rek boo ko ko présenté ñi téye ko téye la kon léeg-léeg nit téye diine fu dëgër fu set fu sell royee ko ci mag mu baax mbaa ci sëriñ bu baax nga dajee koo xam ne làmmiñam wala ndaggi ba mu ñaw tabaarakallaahu yorewul lu dul xànjar bu ñu cuub nekk fa di la nax di la wan leraxaay ga ak leeraay ga ba nga bàyyi sa sëriñ bu baax bu sell bilee nekkoon or wala jamaa nga dem di ko remplacer sëriñëb xànjar te mooy sëriñu sinwaa yi rek dafa bari ci dëkk bi ni marchandise sinwaa yi bari ni la sëriñu sinwaa yi bëree biti ga rafet lool fekk biir ga biir ga dara baaxul ca mango ju nëb la wala nga ne gerte gu wànq la doom ba nee na ñum waaye boo ko xollee fekk dara nekkul ca nga perte saa yoo demee ba présenté wu ci kanam ko xam rek ñu téye ko téye la kon nag nit ku ne lim am da ko war a xam fekk xamul ko weesagul ñàkk ko nit ki tamit lim bëgg di ko wutiit na ko xam fekk mi koy xam weesagul am ko waaye loo am lum rëy rëy boo ko réeree weesoogoo ñàkk ko loo réeree lum rëy boo ko xamee weesoogoo am ko te suñ marchandise mi ñun ñëpp mooy diine suñ ko amee ñàkkuñ dara suñ ko ñàkkee amuñu dara diine jooja nag gannaaw bi ma la waxee ñetti doom yam am ci al islaam ak waxoon la fukki sët ak ñett yam am diine ci boppam tamit euh, ñetti doom yooyu mu am kenn ku ci nekk dafa ràngoo ay maqaama muy al islaamu ràngoo na ñetti maqaama al imaanu ràngoo na ñetti maqaama al ihsaanu ràngoo na ñetti maqaama ku mu ñetti gannaaw bi nga ràngoo sa ñetti maqaama yi yaa ngi ràngoo ay teggiin tey nag maa lay njëkkee rek ci al islaam ak maqaamam ya al islaamu li muy tekki luxatan mooy al istislaamu mooy jébbalu mooy xommatu mooy nangu xatte yàlla yi ci sa xol bu wér moo tax loolu mooy islaam al islaam luxatan bi maana al inqiyaadu ay qabulu xukmillaahi bi qalbihi lii moom lay lislaam baat bi tekki baat bi tamit boo ko jëlee euh, mën naa bàyyi ko ci baata salaamu lugatan al islam mustaqun min assalaam di tekki jàmm moo tax diine ji diine jàmm la ku ca nekk adhéré wu ca jàmm nga war a wax jàmm nga war a jëf jàmm nga war a jëflanteeg sa morom yi duwul diine yi laxasoo ay bomb dugg ci ñu defut dara rey sa bopp reyaale leen duwul diine yi tabaarakallaahu pour risque di taal ay jàkka mbaa nga koy toj mbaa ngay sulli ay nitu yàlla yu ñu suul diina ja duwul diine loola diina ji nag naam diine jihaad la jihaad bokk na ci diine ji di fa di bokk ca furudam ya muy farata joo xam ne fardu kifaaya la te dara taxut lu dul dañ koo war a wattu diine jihaad tay tax ñi wattu diine ndax diine ji dafa taxaw pour wattul ñu ñeenti yëf ba juróom kon ñun bu ñu xamee jom war koo wattu diine jile muy lislaam moo taxaw pour wattul ñu suñ xel mi looloo waral mu xaraamal dorogewu xaraamal naan sàngara xaraamal tux yàmba xaraamal lépp luy tax nit ki tekkalikoo ak xelam mbaa lépp luy waral nit ki xelam mi manki ba Omar ne fu ma gisoon fuñ doon jaayee xel lu koy yokk ma jëndi kon nag su ma gisee lu koy wàññi du ma ko jëfandikoo te mooy dorog beeg sàngara seeg yàmba beeg yooyu yëpp xel nanguwu ko diina ji diina juy wattu xel la moo tax mu xaraamal lépp luy sànq xel mbaa mu koy mànkil waaye diina ji tamit diina la juy wattu askan nga mën a taxaw ne kii diway yaayam ni nga ko mën a waxee nga mën a wax ne diway baayam bu dee war na koo donn moom tamit war na koo donn jël nañ santam wa jox ko ko te duñ bàyyele doom ci baay lu dul ab sëy jiitu ko waaye nag su fekkee dañ ko ko bàyyi la te sëy jiitu ko rek wala sëy am na mu bàyyi ko fa dem ak keneen ba am ca doom jooja doom duñ ko mën a askanee bàyyi te loolu yàq diine la yàlla nag lim bëgg diine ji ñëw di wattu askan yi moo tax mu yoonal sëy xaraamal njaalo wane ne ku njaalo bu sangi wut dóor ko téeméeri yar ak yoon wum ko mën a def bu sangeewoo dugal leen ko ci pax ba mu tolloog wóom ya ngeen sànni koy xeer ba mu dee dafa jëf jëfi bàyyi ma muy jëfi mala kon jëf leen ko jëfi mala mala mooy ku neex fu la neex moom mi tamit wàccee na boppam ba ko neex ko neex ci auberge yi ak ci hôtel yi ak di leen jël ay rendez-vous ci seen kër benn nga fekk mbaa nga fekkante mbaa ci mbedd mee ngeen ni caaju kon jëf na jëfi mala kon nag jëf ko jëfi mala bu sangeewoo rey leen bu sangeewut téeméer yar kon diina ji diina juy wattu askan la bëgg nit ku nekk dañ koy askanee yaayam ñu koy askanee baayam ba alquran ne uduuhum li abaayihim huwa aqsatu inda allah aba nag man taa amati ca baay yooya lu dul a jiitu ànd ga kon nag képp koo xam ne yaa ngi ànd ak soxna su mën a doon takkuloo ko di am moom ay rapport mbaa ngeen di wéet mbaa ngeen di jonjoo bàkkaar bu rëy dal na ci sa kaw nag lu jara daw la rawatina jamono ji ci xale yu góor yu bari amuñu kilifa jigéen ñu bari amuñu kilifa di jokkoo ci internet bi di envoyante ay photo di joxante ay numéro di ci wute ay contact lu cëy lu juddu lu yàqu di sa juddoo ñàkk kilifa ci lu bari loola baaxul kon nag diina ji diina la joo xam ne dafa ñëw ngir wattu askan yi moo tax mu yoonal sëy xaraamal njaalo waaye dina la joo xam ne dafa ñëw ngir wattu alal yi looloo waral mu xaraamal sàcc xaraamal agressé xaraamal trian xaraamal nger xaraamal lépp luy naxe ak la jaaju moo tax mu ne képp ku lekk alali jàmbur ci ak càcc na ngeen dagg loxo ba ci tikku njare ba ndem lim sàcc mat na ruboo dinaar muy quinze mille francs jëm kaw moo tax mu ne wassaariqu wassaariqatu faqta'u aydiyahuma waaw ah su fekkee nag risoo la yonentu kooka moom safara la jëm bu lekkee alali jàmbur ci njar moo xam kay joxe te te loruwut ak te koy jël ñoom ñëpp safara moo tax mu ne arrashi wal murtashi finnaari yéen too ko wax kii ngera ki ñuy ngera yël dossier bi ñu teg la fa weer wu dee ñu fay la buñ togee ñaari weer teguñ la nga geraw takk morso bu xonq wala nga def geraw de fee waaye lañ la fa tegee tamit defoo ko fa yaa ngi yore poste bi yore dossier yi war ko signé mu gaaw ngay xaar ko la jox dara buñ bu la nit joxee dara mu gaaw buñ la joxu dara nga téye ko fa jël ay dossiers yu dul jeex teg ko ca kawam kooku léppam di tarde xàq jooja mën na laa yóbbu safara ëllëg ngay xaar nag ku la koy jox dara la nga koy jox dara nga lekk ko mën naa soppeeku feebar bu dul wérati ci yow loola musiba la naxe ñëw ak yeneen ya ci aju waaye diine la joo xamee tamit dafa ñëw pour wattu der yi moo waral mu xaraamal kaste xaraamal gaaral moo waral kon ba ne képp ku xaste ka mu ku xasuwu la gor la ku fegu caw leen moom aji xaste ji juróom-ñetti fukki yar mu xatte ko xatte ku màndi rek juróom-ñetti fukki yar ku naan mandi nga mandi wuloo lu toll ni puso ci sàngara nañ la caw juróom-ñetti fukki yar yàq nga derab nit xas ko nañ la caw juróom-ñetti fukki yar léegi nag xasante moom tabaarakallaahu dafa xew bu njëkk ba maam yeeg bàyyi naafila guddi jàng alquran bari di julli ci yonent bi def istixfaar di tudd yàlla di saraxe jokk bokk lañ doon njëkkalante muy yéege seen maqaama yi ba kenn ku ne ci ñoom maqaama bi nga fanaan tey dana wuuteeg bi nga fanaanoon démb gën di kawe rek mu yore jikkoy escalier bala ngaa dee rek fekk sa maqaama kawe lool léegi nag maqaamaay ji jamono la ca gën a bëri mooy fekk ko am tur fekk ko am daraja fekk nit ku baax nga tuumaal ko yàq deram mooy mooy léegi mooy yéege maqaama léegi-léegi sax nga jël ko moonte kàddu ya dagg lii dugal lële ba foo ko teg ci pénc ñu xamut ne moo wax lii nga nga nga jublu ca héeg dendale ko ay jigéen mbaa ñu jaxasoo ko ay jigéen def nañ ko kilifa yu bari te fekk loola set nañ ca jublu ca yàq leen jublu ci xéesal leen ka koy def jublu ca yéegee ndax ñaareel saa yoo bëggee siiw dangay ngay fexe ba xas ku siiw soo xasee ku siiw rek wala nga am ak problème ku siiw rek buñ ko tuddee tudd la rek nga jublu ci ne waaw am nga bës ndax bës bu bon yaa bon sa bës boobu tamit ngay wut ne moo la jox bës boobu de ah, tabaarakallaahu bës bu bon a bon la te loolu dafa xew kon lislaam diine la juy wattu der yi moo tax mu yoonal ko xaste caw leen ko juróom-ñetti fukki at waaw ku la wattul sa xalal wattul la sa der wattu la sa xel wattul la sa askan soo xamee jom war koo wattu ndax bu fi neexatul nga wattu ko yow sa boobaa ñeenti yëpp dootul fi neexati moo tax moom tamit mu yoonal nañ ko wattu mu yoonal jihaat lii moo indi jihaat ci lislaam su ko defee nag jihaat yi yonent bi takk yëpp boo ko seetee dañoo dañuy dal ci kaw mu protéger boppam wala ñu tooñ ko mu dem fayu ji diine ji bañut fayu waaye lislaam jug tooñ dal ci kaw mukk te ba muy jihaat ñu tooñ ko wala ñu muy muy fay wala muy protéger boppam dafa yoonal ne bu leen rey ndaw yoonam newu ci bu leen rey màgget yoonam newu ci bu leen rey ab ilimaan wala labbe bu wéet ca njàngoom ba yoonam newu ci bu leen dagg garab bu leen taal safara bu leen lakk nit ñi ci safara bu leen leen lakk ci tooke bu leen jël seen tool yi di ko taal bu leen daa bu leen daane seen bâtiment yi ma ngay dem bay respecté environnement bi kon diine lislaam diine maandu la jox nit gëddëm la diine tabaarakallaahu ñoŋeel deru nit ki la ak xalalam ak askanam kon nag lii mooy mooy mooy maanaam islaam ma tax alquran ang koy wax wa aiddu lahum mastataatum min quwatin wa min ribatil xayli turhibuuna bi aduwallaahi wa aduwakum waaye léegi foo ne jihaad ñu ne terroriste déedéet kon nag diina ji duwul diine yi laxasoo bomb di rey xale wala ay mag jël oto dawal ko dal ci kaw ay nit rey leen taxal këru nit ñi suli nit ñu baax ñu toj jàkka yi yooyu yëpp lislaam taxul ko jug nag wax dëgg yàlla ña koy def di askanikoo lislaam ña ngay yàq seen bopp di yàqaale daru lislaam fiñ mën a jihaad di liggéeyal diina yaatu na jihaatal ci xam-xam ni ko xaadimu rasul waxee woon jihaatal ci xamal nit ñi gindi leen teg leen ci yoonu siraatal mustaqima ak yeneen yi ak yeneen waaye nag sa loola dem na ba tax ñu bëree bari tey ñu leen di xeeb ca wàllu woowa kon diine ngoog al islaam lugatan mooy al istislaamu bi maana al inqiyaadu ay qabulu xukumillahi bi qalbihi nangu waxateeb yàlla ki sa xol lii mooy lislaam li muy tekki moom lislaam moom nag wax naa la ko ñetti mawaqif la am bu la neexee nga ne maratib bu la neexee nga ne maqaamaat mawqif bu njëkk ba daal mooy at tawbatu moo ci jiitu moo njëkk ci maqaamaat islaam tawbatu nag mooy cosaanal bépp yiw moo tax yàlla bëri lum ñu koy digal lim nekk cosaanal bépp yiw di tàmbali waaye bépp yiw moo tax bëri na tabaarakallaahu li ko yàlla di diglee ci alquran yonent bi bëri lim koy recommandé tabaarakallaahu ci hadis yi yaa ngi jàng ci alquran yàlla ne fa tuubu ila baari ukum faqtulu anfusakum waay waay tuub leen jëm ci ki leen bind tuubu ña nga xam ne ñoo leen jiitu woon nag di nitu Muusaa ña ñu jaamu woon yëkk wa ña ko jaamuwutoon moo leen ñoo leen di rey kon seen tuub ga mooy rey seen bakkan waaye tuubu xeetu yonentu yàlla Muhammad tamit ba tey dàq waxante wut loolu rey sa bakkan la rey sa bakkan ba dootul gisati benn mbaax ak dootul gisati benn yiw ci boppam gis na ni moo gën a xees ñëpp moom daal boo xeggee foofa rek sa tuub wér na kooku mooy wa tuubu ilaa tawbatan nasuuxan di ñu yàllay digal kon a tawbatu mooy premier maqaamaab islaam yonentu baa ngi koy wax ne a taibu min zanbi kaman la zanba la kuy tuub ci bàkkaar moo ki xamul bàkkaar ñoo su ko defee kon a tawbatu moo ki njëkk te tawbatu moomu aslun li kulli xayrin tawbatu moomu nag mooy lan wa hiya rujuu min xadrati almuxaalafati ila xadrati taati bi niyati almuwaafaqati li amrillah maanaam tuub mooy dellu ci lépp lu doon ak wuute lu la yàlla sant nga waroon koo def defoo ko wuute nga lu la yàlla tere nga def ko wuute nga yii yëpp nag nga bàyyi ko dem ci xadratu taat topp yàlla ci def ndigle yi topp yàlla ci bàyyi tere yi nga jublu ca dëppale ko ak ndigalil def ndigalal yàlla waaye yëpp boo ko defoon te jubluwuloo ca yéene def ndigalal yàlla du dara xam ngeen ne xoor du dara lu dul bàyyi lekk bàyyi naan fi jant sooyee wala fi fajar xaree ba jant so soo fi toogoon ne kon maa ngi dew grève de faim xoor nga rek waaye ñàkk yéene gën ci yéene ndigalal yàlla tax kay geraw de fin di woor moo gën a métti le ki woor te yàlla tax bu yàllay fay faykale ah demeet noonu nga koy toppee ci mbooleem taaat yi xam ngeen ne tamit koy koy julli jàng jàng ba yegg ci ayam sajada root su jóot wala mu mu mu mu mu moom ci boppam mu toog rek am xibaar buñ ko jox xolam sedd mu def sujoodu sukkuri sant yàlla rot xéene na ca topp yàlla moo tax yàlla da koy fay bokku teg fa dugal bii wala mu doon róofoog moromam ñuy bëri kenn ku ne luqu daan moromam sujoot déedéet kii sujoot ak sant yàlla la kii sujoot ak santaas yàlla la te ñoom ñaar ñëpp bokk luñ def seen jëya laal na suuf seen bët wóom ya laal na seen ca tànk ya laal na ak seen loxo ya la yonent bi ne woon yàlla digal na ma naa ko sujjóotal sama juróom-ñaari cër yi am riwaaye bu ne sama juróom-ñaari yax yi ñoom ñaar ñëpp def nañ ko waaye nag adamul muwaafaqa rek li amri laa foofu lañ wuutee kii da koo def ngir dëppale koog topp yàlla muy ndigalam kee da koo def ngir topp dëppale koog topp bànneexam noona kon ci woor ki joxe asaka yëkkati alalam def inventaire ay magasin am wala mu xool mbayam mi seet la ca war a génn mu génne ko seet ko ko yoo jox ko ko joxe rek la def waaw ki nga xam ne dafa toog tamit am ku ne ko géntal naa la wala mu dem ci ab sëriñëb bu kaaba mu dawal pettaawam yooya ne ko faw nga saraxe nag wu weex nga dem seeti limaanu jàkka wala nangam nga jox ko ko waaye waaye ñoom ñaar ñëpp joxe nañ kii nagu sarax asaka la joxe mais li wajhillah kii nag da joxe ngir liñ ko wax ndoola moo tax mais bu loolu taxutoon du ko joxe kon kii mooy fayeeku ngir lim def mais kee fayeeku dara demeet ki aji màkka ngir yàlla rekk tax mu harmal wër kaaba ga dox safa marwa am ku def lim def jublu te yokk aw turam jàpp ne darajaam dafa suufe wala jublu ca ñu fonk ko ak nangam ak nangam kooka boo lëggee kii ay fayeeku mais kee du fayeeku ndax kii fa koo dëppaleeg topp ndigalal yàlla kële nag dafa ko dëppaleeg topp bànneexam moo waral du ci fayeeku dara kon première maqaama ci diine kooku mooy ci lislaam mooy li ñu tuub tuub nag ñëpp ko war a def bàyyi ko xel bu baax a baax a baax tuub dellu ci yàlla te mooy bokk na ca tuub gi xéewal yu rëy yi la yàlla jox nga jàllar bi ko jël xéewal ya di ko di ko doolewoo di ca mooy yàlla yàlla jox la xaalis ni mu jafee xañ ko ñu bari amoo dara dara dara loo njukkalee yàlla lu dul jël xaalis ba jëndee ko dorog mbaa nga jëndee ko sàngara wala nga nga tuxee ko cigarette taal ko mu dem loola nga tuub ci loola bàyyi ko naka noonu tamit ki yàlla jox kartan bëri ñuñ ko xeñ lool yore ñeenti soxna yàlla xeñ la kartan yow yàlla jox la kartan amuloo looy def lu dul sa jël sa kartan li di ko njaaloo nga tuub loola ci xéewal yàlla jox ak yow fi nga ko delloo naka noonu tamit yàlla jox la kartan nga am wér am na ñu ne njéej seen lal ba wàcc ko ñii ba nañoo wàcc bay taalal seen tànk ya bay mën a dem ci toilette ba ñépp a cay bokk yow nga ne bëreet yàlla jox la xéewal ak bëreet mën a bëreet jug taxaw mën a bëreet jug toog mën a jug doxi soxla léegi-léeg nga mën a yëngal sa ndigg li sànni say tànk ànd ak loola lépp nga jël doole gaag kartan gaag sañ-sañ ba lépp dimbandikoo ko ci kartanal yàlla di ko ca mooy moo jom yaa ñàkk jom li ngay mën a dox yëpp topp ab bal muy benn mbuus guñ def air rek da koy dàq heure bu ne ne damaa bëgg mu dugg ci diggante ñaari camp yi boo ko ci dugalee jug sarxal dugal naa bii jàkka ji jege la yàlla na la dugg fa nga dugal fa ñaari rakka kon ngay door a dugal bii nga ne du ma dem sama yoon nekku ca dem na ji bu paaye jullit timit gee ñee ngay wafi fa sa yoon nekku ca yooyu yëpp yàlla la jox kartan nga dimbali koo kartan nga di ko ca moy bis boo demee ba mu nangu kartanam gi nag ngay door a kon nit ki war naa am kersa xéewal gu réy gi ko yàlla jox ci alal ci xel ci man-man ci ndomba tànk ci dara ci ci ci ci tabaarakallaahu yooyu yëpp da ko war a dimbanikoo pour dimbale ci diine yàlla ji dimbanikoo ko dimbale ci jaami yàlla yi dimbanikoo ko dimbale ci diine ji waaye warut koo dimbanikoo di ca mooy yàlla am na ñoo xam ne seen xel mi ni mu ñoree luñ dégg benn yoon duñ ko fàtteeti luñ gis duñ ko fàtteeti waaye seen xel ma yëpp dañ ko jël dimbali ko di ca di ca tëral ay naxe di ca tëral ay tappale ba mën a lekk xalalu nit ki ba mën koo jaar nangam ak nangam fii laa koy tegal yoon tegal ko mbir fiir goo xam ne du ca mën a rëcc bukk loola lépp ak mbon la dimbali ko moyen yi la yàlla jox la di ko ca mooy nga tuub loola am ca kersa bu baax a baax moo tax eh, yàlla ne su ma la tus àllun na yow may san naim xéewal yi ma leen jox bis dana jot ma dagale leen laaj leen ko lu ngeen ca def kon tuub loo am solo la ci xanam yëpp tuubal ci lépp luy xalaat bu xalaatu tàbb ci sa xol bi wala ci a xel mi tuubal bépp jëf bu gongee ko ci sa cër yi tuubal ci lépp loo waroon a def ta nga ba tuubal ci lépp loo waroon a bàyyi nga def ko su ko defee kon nag su boobaa ngay door a jox yàlla gëddëm ci sukkuru ji mu wax ne wallahi la in shakartum la azidannakum wala in kafartumu in azabi la shadid kon tuuba ngoog tuub daal mooy génn ci weddi xéewal dugg ci sant xéewal delloo yàlla njukkal xulamaawu suufiye yi ne tuub daal mooy génn ci mbooleem jikko ju suufe fexe ba jikko woo jikko ju kawe ñii ne tuub daal tabaarakallaahu mooy góorgóorlu ba bañ a bàyyi farataay yàlla yi waaye tamit bañ a jonjoo bañ a toggoo yàlla xaraamal ñu ne yëpp xeet la ci tuub kon nañ ko bàyyi xel nekk ca tuub googu lañu suñu borom tabaarakallaahu sant ne fa tuubu ila baariikum faqtulu anfusakum kon premier maqaama ci ci lislaam mooy at tawbatu tawba nag muy tuub ku ca ne rek yàlla bëgg la ndax yàlla wax ci alquran ne inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahirin kon kooku mooy premier maqaama ba ak tawbatu tawbatu boobu di première maqaama bi nag dafa amee sarta ay condition sarta bu njëkk ba mooy al iqlaaw yaa doon sàcc nga ne damaa bëgg a tuub baal sàcc ga la nga sàccoon mu nekkoon ci say loxo sax sànq guloo ko demal nga delloo ko yaa doon tuux cigarette nga ne damaa bëgg a tuub bu fi toog naan damay xaar ba maanaam paquet bi ma jëndoon jeex dama ne galan bi nga xam ne yaa ngi ko taal jeexagul nga da ngay sax fay ko yaa ne woon dangay ngay tuub ki naan sàngara bul toog naan damay kaar ba li ma jëndoon jeex butéel boobu sax nga fex tabaarakallaaw li nga guux ngir bëgg a tuub jàll gut maanaam dindi ko yàbbi ko nga tuur ko yaa doon tuub ci wàllu njaalo tabaarakallaaw ba nga demee tamit soxna sa tabaarakallaahu ba nga wéet ak moom avant ngay wéet ak moom baaxal loola tuub mooy waral dëggal tuub waaye dafa def ba mënatuloo ci sàcc ci naan ci tuux ci mooy ne maa ngay tuub déedéet kooku duñ ko nangoo tuub kon bi ci njëkk ci sarta yi mooy buddeeku bépp ak caay-caay ak mbon goo nekkoon rek nga buddeeku te kes saasa ne ko ñaareelu sarta ba mooy adamul israari maanaam bañ a nuur ci bàkkaar bañ koo nuur ci sa man naa am defatoo bàkkaar ba waaye bu ko nit di def sax sa xol dafa ciy sedd kooku ba tey tamit tuuba góob waaye dafa laa war a métti ka koy dafa mel ni yow yaa ko def ci sa tuub kon nag adamul israar yi ay adamul mudaawamati ala zanbi bil qalbi bi haythu yan wii allah yahuda ilayha mooy nga yéene ne dootuma delloo ti ci bàkkaar bi soow mii daal ñi ratt ci batt bi ni mu lottee ci mën a delluwaat ci batt bi noonu tamit laay laa dogoone dootuma delluwaat ci bàkkaar bii may tuub kooku mooy ñaareel ba ñetteel ba nag mooy ànd dëmu mooy réccu ci lépp lu baxe koo ci yow ci ak caay-caay nga réccu ko daanaa tuux daanaa sàcc daanaa tëddee jigéen ñi daanaa daan jëw daanaa daanaa yàq deru nit ñi daanaa lekk alal ju haraam daanaa dox ci lu yàlla gërëmut daanaa faat jàkka ji loola lépp tabaarakallaahu nga réccu ko mu métti la ci sa xol da ngay yàgg yàlla rek ngay jooy waaye tamit nga tuub réccu li nga xam ne dañ koo waroon a def nañ ko war a defee yow nga ëppal ko waaye tamit lu ñu waroon a def nga sàgganee ko kon ñett la lépp lu gongeekoo ci yow tuub ko ci lu baaxut loo waroon a def sàgganee ko tuub ko loo war na def nga def ko lu xëpp nañ ko waroon a defee tamit tuub ko kon a nadamu ala ma farata minhu wa farata fiihi wa afrata kon loolu ñett yëpp moom ngay bokk tuub te mooy ñaawlu ci sa bakkan bi lépp lu wutee ndigalal yàlla tabaarakalaaw di waral sànjam yàlla nga nekkoon ca def ko rek tabaarakallaahu nga tuub ko métti la ci sa xol nga am kersa maanaam fi yàlla jaar ak yow ci tokkantal ma niyu lu mu dëreet suux ndam la garne ci sa biiru yaay bi ak la la ngay lekk ak la ngay naan yoon wi nga jaar ba génn niñ la teetee nga mën a nga mën a mën a taxaw mën a dox ba xëy nekk am ponkal yàlla jox la xel mën naa am jox na la poste boo xam ne tere naa nelaw ay millions yi nit yàlla kañ ko ñooña jox la ko amoo dara loo njukkalee yàlla lu dul di ko mooy ci sa jumtukaay yooya nga am kersa loolu ci taxaw sa kanam sa borom ne yaa ñàkk jom xoolal fi ma jaar ak yow ak yow fi nga jaar ak man kon loolu mun munta ñàkk wastihyaa'uhu min an yaqifa bayna yaday laahi wa huwa muxaalifun li amrihi waa ba nga xam ne fa la wajada sabilan ilal mawti la maata nga dema dem ba am kersa ne man daal dee xaru bu daganoon tey billaahi ma def ko ngir fi yàlla jaar ak man ak man mii ni ma bonee ni ma yéesee ak fi jaar ak yàlla nga dem a dem ba loolu metti la ci sa xol nga nga am ak kersa gu métti guy lakkatu ci sa biir aa ah, su boobaa nag loola mooy tax ñu ne réccu am na moom laal alquran ne wattabaa hawaahu wa kaana amruhu furata kon yooyu yëpp nga bàyyi ko ca xel kon nag loolu yàlla nga koy wax ci ab jaam bu ba nga topp sa ngam ba kon nag jaam bi dëgg-dëgg mooy ñun sang bi dëgg-dëgg mooy yàlla xaqiqatan nag lu ci des nag ma la kon bi ci njëkk daal wax naa la ko ci sartaay tuub mooy buddeeku ñaareel ba mooy ñàkk nuur ci bàkkaar bi ñetteel ba mooy réccu ñeenteel ba nag mooy jublu jëflante ak yàlla ci màggal ko ak daw lépp luy weddi xéewalam ya ci wuuteeg def ndigalam ya ak bàyyi tereem ya suróor yëpp nag boobu moo ci ëpp doole muy qasdu muamalati alxaq bi taadimihi wa xawfu kufraani niamihi bi muxaalafati amrihi wa huwa qutbu suróor kon yëpp boobu ci ëpp doole yii yëpp su ma la ko doon tënkal daal tuub mu gën laa jege yow mii daal yaa nekkoon ci lu bon ba lu bon loola jural la nga dugg ci benn séebu safara wala nga dëgg ci ay xali safara nga toog rekk gis tàngoor waa métit wa nga ne man suma bopp daal dama bëgg a tuub kon nag première sorte ba mooy buddeekul tëbal nga génn séebu ba mbaa nga génn xal ya kooku mooy al iqlaaw séeboobu safara ku ca dëgg ba tëb tax mag ngi daan wax ne ku tëb ba dëgg ci séeboob safara dese nga beneen tëbin tëbin googa nga dese nag bu dee ko fettaxu dal fële kooku mooy al iqlaaw ñaareel bi séeboob safara ku ca dëgg doo ca continuer kooku mooy adamul israar yi ñàkk nuur moom ko ca saas nga ngay ngay ngay ngay teggi sa tànk ba ñetteel ba ku ca dëgg da nga réccu lu taxoon nga dëgg ci ñeenteel ba tamit xaw ma ban kal moo lay lakkati mais doonul doonati wii da nga ko fa jëlee léegi léegi mbaa yow nga jógee koo kon nag ñeent bu dëppoo ci tuub bàkkaar bu mën a doon boroom na rafet njortu xam ne suñu borom ku baax la inna allaha yuhibu tawabin wa yuhibu almutatahirin waaye nga def sarta yëpp nag sa xel di ñaawati ne man yàlla jéggalu sax boo baneen bàkkaar la da ngay rafet njortu nag xam ne ki ko séq ku baax la moo ko bañ ba tuddee boppam ne innahu huwa albaru rahim lii mooy première mooy mooy suratu tawba kon wax naa la ko premier maqaama ci maqaamaatu diin mooy at tawbatu tuub wax naa la mooy lan luxatan wax la ko istilaahan wax la suróot ya dama lay wax nag teggiin ya teggiini tuub teggiin ba ca njëkk teggiinam ya ñeent la suróot ya ñeent la teggiin ya ñeent la première teggiin ci teggiini tuub mooy mbooleem sa mbokk yi nga àndatoon nag di def lu bon comme da ngaa tuub ñooñu ñëpp da leen war a gàddaay bu la àndateeg ñoom feek maanaam bàyyiwuñ lañ ne woon yaa daan ànd ak say morom yi di naani sàngara yaa daan ànd ñoom di baali ànd ak ñoom di dem ca làmbu ja ànd ñoom di sàcc ànd ñoom di agressé ànd ñoom di lekk nger ànd ak ñoom tabaarakallaahu di jëw boo ne tuub naa yooya nag ña nga doon ànd ak tamit danga leen di tuubaale bàyyi leen muñ leen utaat àndandoor yu bees yu baax yu yu sell yu la gën a jub ñu man laa teete waaye ñu bon ñooñu ak yaa ngi ànd ak ñoom rek mu muccagoo ca mbon nga arab yi dañuy wax ne inna tibaa tasriqu tibaa jikko dafay sàkki jikko kon première teggin ba ña ngi doon defar lu bon baleen waaye feeg bàyyi leen rek du du du du du sotti su ko defee tamit nag ànd ak loolu nga bëri looy tudd yàlla foo toll rek del wax laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah ci sa xol ak ci sa làmmeñ ndax kat fa inna zikra yu nawirul qalba sa xol bi dafa ñuuloon kukku tilim tudd yàlla googu ngay tudd yàlla projecteur la bu koy leeral ya ca nekkoon te bokkuñ ca tudd yàlla gi moo koy tax génnee ko ci bam jeex takk mu ngi mel ni ab làmp boo taaloon poussière ba ñëw wër ko tabaarakallaahu lu nekk dugg ca mu ñuul kook ah soo bëggee làmp ba setaat nag leer nañ da koy fomp ut morso moom morso biñ koy fompee na ba mu set kooku mooy tudd yàlla kon loolu mooy première sarta ba mooy première kon teggiin wa yaa doon def lu bon di jaxand nag ñu bon ba nga lu bon la baxal ñu bon ña waaye soo dama bàyyi lu bon ña te bàyyiwuma ñu bon ña da nga dellu da nga delluwaat ca lu bon la de maa la ko wax kenn mënu ci dara moo tax kon yow mi may déglu di njaboot boroom kër sa doom ji dafa daan sàcc mbaa muy tux mbaa muy gens nga yóbbu ko ci sëriñ mu ñaanal ko ba mu ne bana ko dollil ñaan nga ba mu ba ñam doon ànd ak di ko def feeg bàyyeegun ñam doon ànd ak rek dana delluwaat ci mbir ma maa la ko wax xaaral sa tànk tubay xeex ba mu sensé àndandooram ya loolu nag dara ëppul ci doole boo ko fexee ba teqalikoog loola te yóbbu am jot yóbbu woon ko ci nga fexe ba mu ñàkk jot rek loolu la Maodo waxoon nit ñi kenn mënu leen a tere mooy yàlla waaye fexee ba mu xam jot ga rek suñ xëyee takk seen tànk yi liggéey yi bu ñu wàccee dugg ci biir kër gi takkoo seen kurus ci ba nelaw fekk leen ca boobaa dutuñu xamati jotati mooy yàlla kon ku bëggati sa doom jamono ji mucc fexeel ba bu mu xam jot rek ci yu bëri loo dàqe doo ko jot te lu la dàqe jot la ci lépp nag waaye boo bëggee loo dàqe jot ko ñàkkal jot ku ñàkk jot loo dàqe jot ko ku la dàqe du la jot soo xamee jot lu la dàqe jot la loo dàqe doo ko jot kon nag loolu jar naa bàyyi xel ñaareel ba ca teggihin ya tabaarakallaahu mooy ko ak tàppo ak nit ñu baax ñi ya bàyyi woon lu bon ba tax nga bàyyi ñu bon ña léegi yaa ngi ci yaa ci lu baax fexe la ànd ak ñu baax ña sa fréquentation ya doon def ca baal ya remplacé ko déglu conférencier ya ak gàmmukat ya remplacé ko takkoog irimaan ci sàpp ju njëkk ja ca julli ga remplacé koog dem ca daara alquran ja li la faat ci njàng nga di ko jàng xaritoog ustaas yu baax ña kon nag loolu boo ko defee rek xalaa kulli xaal Euh, sa tuub bi dana gën a dëgër kon mooy mu waasalatun wa mu aalafatu ahlil xayri lii daal moo ci ëpp solo ci lépp euh, su boobaa daal àndoog ñu baax ña dana tax nga baax ku mbaax ku mbaax jafe àndal ak ku baax booy baax doo ko yëg ku mbon jafe àndal ak ku bon booy bon doo ko yëg kon nag bàyyi nga lu bon la ba tax nga bàyyi ñu bon ña tey yaa ci lu baax li àndal ak ñu baax ña tamit rek boo ko defee rek yàlla dimbali la ca loola kon nag wasbir nafsaka maa alladina yad'una rabbahum bil ghadaati wal ashi yuriduna wajhahu loolu rek moo ci am solo ba nag mbooleem palaas yi foy ya nga daan dem gàddaayal palaas ya bul demat ci benn palaas ab ngoon te jiite naa bu mawaadi ay ila shahawatiha inda ru'yatiha kon mbooleem place yi foya bu fa sa tànk dëggati bul demati ci palaas yu ñuy fecc bul demati ci place yu ñuy moye yàlla bu mën a doon bu fa sa tànk dëggati bu fa sa tànk dëggee rek tabaarakallaahu sa xol bi mën naa jéng jëm ca bànneex yooye nga fàttali woon ca ba nga mujj nga defaat ko kon tuub yombul de ñeenteel ba mooy bañ a fàttaliku li passé boo fi nekkee naan hee ay tey boo fàttaliku guddi yooya waaye guddi soirée ya guddi yañ doon baali cëy ndaw guddi yu neex guddi yañ daan dajee di def nangam ak nangam fee yaa ngi koy fàttaliku rek weesoo goo dellu ca kon danga koy fàtte carrément kon nag ñeenti yooyu tabaarakallaahu mooy aadaabul tawba wax naa la ko réej maanaam adab bu njëkk ba al adab bu awal mooy baxi ña ngi daan ànd ak di def lu bon benn ñaareel ba nga nga remplacer ko ñu baax ànd ak ñu baax baal ñu bon ña ñaareel ba nga ànd ak ñu baax ñi baal lu bon la te nga nekk ci lu baax fàtteel place ba ba nga daan defee lu bon bu fa demati mukk waaye tamit fàtteel lu bon la daan def ca place yooya noona ñeent yi bu dëppoo rek aadaabu tawba mën a am kon nag adamu zikrihi shay'an mimma salafa min ahwali sigaril quuquul bil muxaalafaati maa damimi kasratil istigfaar wa tawxiid yooyu yëpp nañ ci nañ ciy bàyyi xel yi daal ku ko def tabarakallahu sa tuub mat na wax naa la charta ca ñeenti condition ya muy buddeeku gaak réccu gaak ñàkk nuur ga tabaarakallaahu Euh, euh, waaye tamit dabaatal lépp lu cay lu jàppandi lu paase woon bu yaay xaq yoo ma fay fayal julli yàlla faatoon fayal euh, xaq yi nga gàddul nit ñi la ca xalal man fay ko la ca la ca alal mënut làmmeñ di ko wax nga ñëw jàkkaarloog borom di ko baal ma àq jërul nga koy leeralal liñ ko defoon ñun xëytu yonumtu bi la yàlla defal loolu xëyt yi ñu jutu woon boo jëwoon nit baa nga xas ko baa nga rambaaje ko da ñëw ne ko baal ma dama laa xasoon baa dama la rambaaje woon nga fasal ci sa xol li nga ko tooñ rek ko baal ma jërut nga ko koy leeralal buy alal nag delloo ko ko boo ko ko leeralee lay baax na buy alal ja boo ko ko leeralul tamit comme jot na ci xaq ja rek tamit baax na waaye buy nag lu dul alal nga xam ne wax rek la fasal ci sa xol rek nga jéggalu ko léeg-léeg nag nit ñi tabaarakallaahu jaaree ko ci korite yi lu baax la jaaree ko ci tabaski yi jaaree ko ci tamxarit yi jaaree ko ci gàmmu yi jaaree ko ci yeneen yi ngénte yi dajeeg si naa baal ma ak nangam ak nangam ba tey tamit baax na loolu lépp ay porte la yu ñu yàlla ubbil yu ñu mën a mën a jaaree ba man caa dabaatal lépp lu yàqule woon te loolu lépp jar na bàyyi xel kon nag booba léegi waxtu wi yëpp maa ngi ko doon wax yow rek ci euh, tabaarakallahu euh, maqaamul awwal fil islam te mooy at tawbatu wax la surud ya muy ñent wax la adab ya muy ñent boo ma toppee suba ci waxtu wi insha allahu ma ñëw ci ñaareelu maqaamaab islaam te mooy al istiqamatu ndaw lu jafe mooy jub pàcc benn waa doon la ko ñaanoo Cheikh na Tijaani mu ne ko istiqamatu fii zamanina haza ci jamono ji de moo gën a jafe xéeg ci asamaan si de ci ci ci maanaam ci lu duwut eseel wala ci lu ci ci seel waaye yéeg ci asamaan si ànd ak seel sax dafa jafe di waxuma la nga ciy yéeg taamuloo eseel mun na ko jub pocc ci sa wax ci sa jëf ci sa xol ci sa comportement ci ji jamono wallahi loo ca ma am jamono ji moo la ko du may euh, kon nag loo ca xam rek tabaarakallaahu jëlal bu subaa nag suñ bopp suñ bopp dars bi mooy istiqaamatu mooy lan istiqaamatu moomu tamit lan mooy ay sartaam ñaata la waaye istiqaamatu moom lan mooy ay aadaabam ay tegginam ñaata la suba mooy nekk suñ bopp darsu buñ ca bàyyi ko nag door a ñëw ak taqwa taqwa moomu na nga xam ne mooy caatam islaam ci maqaama ya lan ñaata sarta la am ñaata teggin la am loolu lépp bu ñu fi yàlla mayee suba incha allahu ñu yegg ci wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu